peuvent participer à vraiment mettre en lumière les droits qui sont encore malheureusement bafoués ici au Sénégal. Alors, euh... ñu wàññi tuuti politique bi. Mhm. parce que nekk na loo xamante ne man keneen ak keneen yow euh, ñu ngi def ay tribune yoo xamante ne dañ koy jagleel politique bi am si wàll lool. donc thématique yu bëri ñu ngi fi soxal jigéen yi naka la ñuy def ba ñeen ñi yor ay serviette hygiénique. Mhm. mën a dem si école yi. Mhm. ñeen ñi am seen jàng dafay arrêté ñu teg ay thèmes yoo xamante ne ni buñ ko waxtaanee euh, jigéen ñi dinañ ci gis seen bopp mais aussi ñu gën a communiquer kii ñu xam lan mooy sensu fête bi xam ni ñi si bëri gis naa leen euh, occasion la pour mu nekk fête Mm-hmm. pour mu nekk ay nurowaale pour mu nekk ambiance boo xamante ne nii xëy na euh, aspect festif bi am na ci solo parce que tamit bés boobu noonu euh, yenn jigéen yi ñu rendre leen hommage ñu sargal leen mm-hmm. am na ci solo mais tamit nañ ciy profité di organiser ay cadre d'échange mm-hmm. def benn thématique wala ñaar toog ci entreprise yi jigéen ñi woo nag góor yi ndax bu ñu def jigéen kese ñu tëju di waxtaan ñu woo góor yi tam parce que tamit yenn yi suñu bëggee di ko am muy yomb dañ leen ci war a associer bu ko defee waxtaan yooyu di am solo a tëju rek pour feetu nañ ci boole waxtaan yi ci ay thématiques yu ñu yitteel